مع عيوبي ومع غفازي من قادني سكور في أنفاسي من قادني سكور في أنفاسي حمدت ربا خدم أدناسي معيسا مني مال الخناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا سدد لساني نور جناني صف أماني وصد براي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi nga xam ne ñooy seetaan seen télévision bu mag bi di GMT TV Grande Mosquée de Touba TV tey émettre fii ci jumaay Touba ju tedd ji daayiratu Muxaddamatul Xidma di ko saytu euh, ñeen ñi ko seetaan ñëpp ak di ko déglu ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu tedd di leen ziyaara bu baax di am mbégte nag di dellu siwaat ak yéen tey jii di leen xamale ak wala di len nuyale itam ak gan gu tedd gi nga xamne ndamul serigne touba lati lu feeñati ci jamono muy jumaa masalikul jinan du dakaro gi ngeen di dakar lol muy ndam lu rëy ci serigne touba di ndam lu rëy ci l'islam di ndam lu rëy itam ci Afrique gi fete sowu jant waye di ndam lu rëy ci ndakaaru di ndamul murit yépp di ndamul Serigne Touba loo xam ni la mu waxoon tontu woon ko sëriñ bay Sarr ca ne ko danaa bàkku su bàkku jotee su sama soror jëmee kaw bu boobaa loola mooy sama bàkk ndax bàkk mooy yëkkati say loxo mu jëm kaw loxo nag bu yëkkati koo jëm kaw lu yàgg-yàgg day wàccaat jëm suuf ndax day toqi waaye bu soror yi jëmee kaw nag jëm na kaw te dootu jëm suuf soror yooyu nag dolliku na ci soroor yi jëmoon kaw muy soroor yi jumaay njaareem ja nga xam ne moom la njëkk a digle ak jumaay tubaa ji nga xam ne moom la ci tegoon waaye tey jii nag joj ndakaaru ji dolliku na ci fekk si ay junniy junni jumaa yu Sëriñ Tuubaa mm, amal ci ak njabootam muy liggéey bu am solo nag boo xam ne euh, xam ngeen ne mi ngi tàmbalee woon ci melaw woo xam ne dafa nuroo lool ak jumaay tuba ji aw mero ndax njëkkoon na am barab bo xamne ne ngi koy fàttaliku bu tollu won ci 4000 mètres carrés ci jamono Cheikh salih mbake radhiyallahu anhu mu joxe won digel li bañu defaron plan yi ba war ko tambali mu am ciowul suuf yalla dogal ñuy dox ba gisat barab bi nga xam fi la nek tay ci jamono Cheikh mohammedul Amin mi nga xam ne moo njëkk a wóotu Serigne Touba ci ay sëtam dajeek yi président Abdoulaye Wade mi nekkoon président de la république ci Sénégal ci jamono joojee moom moo joxoñ sëriñ bi barab bi sëriñ bi xool ko daan ne barab baa ngi nii booba mu nekkoon barab boo xam ne bu naqaree xool la ci di ko gisee ci gisin wi ñu koy gis tey mu wute woon lool ngir ne barab ba bindoo woon ci am ndox mu bari ci am ñax ci sax wóoradi goo xam ne barab bi amoon na ko waaye teewul sëriñ bi joxañ barab boobee ne barab baa ngi nii mu fekk julli ayit di jot di jub des lu néew ci ay fan mu joxañ leen barab bi ne leen ni ngeen fa julli ayit muy lu doy waar barab boobee nekk lu toll ci 60 000 mètres carrés xam ngeen ne 60 000 mètres carrés euh, mooy juróom benni hectare xam ngeen juróom benni hectare nag mu wuute na ak loo xam ne matul hectare ndax 4000 mètres carrés la woon matul sax xaaju hectare ndax 10 000 mètres carrés mooy hectare te léeg-léeg 4000 mètres carrés la woon su doon 5000 mètres carrés sax xaaju hectare lay doon kon lii ful na loola ay yoon yoon yoon waaye itam mu nekk barab boo xam ne mu ngi ci dikk Ndakaaru nga xam ne dafa mel ne dañ ko fay dencaloon Serigne Touba rek ndax lu tax ca jamonoy tubaab yi. ba bi ñu koy jox sëriñ Touba xel xalaatul jëm faa def dara dëgg la jafe-jafe jamono ci la bokkoon ndax barab ba neexutoon a liggéey waaye itam mën naa am am na ñu nekk bitim réew wala feneen ñoo xam ne amoon nañ dooree def fa leneen lu dul jaamukaayu yàlla bee waaye yàlla daf ko waa dencaloon sëriñ Touba mu doon ab dencam. nuróo gi ak Touba nag mooy xam ngeen ne jumaay Touba sëriñ Touba moo ko santaaneel boppam. ba joxe ndigal li ba dajale woon la cay dem ci ñaqu murid yi ci tënk ba ñu ba joxe ndigalul ñu tàmbali ko maam na jóge Thierno jógee Daarul Muxti ñëw fii ànd koog sëriñ Mbacke Bousso ak Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Fadil sëriñ Massamba ak mboolem taalibey murid yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ Touba di kilifa ngir tàmbali liggéey boobee waaye sëriñ bi jóge fii ci jamono yooyu liggéey bi dem sëriñ Saalihu moom itam moo ko xalaatoon ba defaral plan yi ba ni ko Serigne Touba defee woon ba waajaloon ko ni nga xam ne noonu la Serigne Touba waajale woon jumaa Touba ji waaye bu mu àgg foofu mu wàcc ab liggéey moom itam Serigne Mouhamadul Moustapha mi njëkk a wuutu Serigne Touba ci doomi Serigne Touba moo tàmbali jumaa ji andi ko fii mu nekk itam toxale ko fa nga xam ne fa la njëkkoon a nekk ci penk bi tuuti waaye bii itam Cheikh Mouhamadul Amin mi njëkk a wuutu Serigne Touba ci ay sëtam ko tàmbali moom itam jële ko ca pa fa a nekk indi ko ci fii mu nekk tey jii ba taxawal ko nii mu ko taxawe nii mu ko taxawale waaye mu wéyal liggéey bi ba teg ko ci loxoy rakkam Cheikh Mouhamadul Fadil sëriñ bii itam wéyal liggéey bi tàmbali ko tuuti teg ko ci loxol Cheikh Sidil Muxtaar mu di ko doxal ba ni nga xam ne noonu la fi jógee waaye lenen lu kenen ki man amat fi ci bir moy Serigne salifu momé bi mu joté ci tak bu dëkk ba bëgg ko défar Serigne muntaha mi la joxoñoon def ko jawrin Cheikh mohammedul Amin bi mu jotaté ci tak bé Serigne muntaha mi la joxoñ def ko jawrin Cheikh Sidil Muxtaar itam mi nga xamné mo doon tambali liggéey bi di doxal itam ba ñu te ba mu tegee ba wi ak bi nga xam ne noonu boobu la Cheikh Sidi Mokhtar yore liggéey bi lépp ci loxo Cheikh Mouhamadul Mountakha mi la tegoon liggéey bi loolu nag bokk yi ab joxañ la bu am solo ngir tey jii dara ëmb ko fa lépp yàlla dogal na ci ab taxawaayam la kon moom la ko sunu borom jagleel yàlla na ko yàgg jiite lool ànd ko rakkam yi nga xam ne ñoom la ko àndal waaw naka noonu itam sëriñ Mbacke Bousso moom la sëriñ Touba santoon mu jubale xibla jumaay Tuubaa ji mu taxaw ci taxawaay bu mat sëkk sàkk ñaari doomam di sëriñ Bakir Bousso doomam ak sëriñ moo Modou Khary Fagnang mi nga xam ne doomi sëriñ Massamba Faty la mi nga xam ne mook sëriñ Bakir Bousso ñoo bokk ñaari wayjur ñoom ñaar mu formé leen ci ilmu nujum formé leen itam ci wàllu jubale xibla ay jàkka ba ñu man koon manin woo xam ne jéggi na dayo mu ànd ak ñoom teg euh, natt natt jumaay Tuubaa ji sëriñ Baaxeer moom yi nga xam ne moo àndoon ak sëriñ Modou Khari ci njiitul sëriñ Mbàkke Bousso doon natt jumaay Tuubaa ji doomam itam sëriñ Moustapha Bousso moom sëriñ Baaxeer moom la sëriñ bi santoon mu natt jumaay Ndakaaru ji ngir jubale ko la moom ngeen di si noonu ba tey loolu bokk ci limburoo ak jumaay Tuubaa ji waaye mu nekk mbokk yi liggéey bu am solo bu rëy bu rafet bu siggal lislaam bu siggal yoonu murit bu siggal sëriñ Tuubaa di itam ndam lu am solo lu rëy ci ndakaaru waaye di ndam lu am solo itam ci gouvernement Sénégal ci njiitul ca njëlbeen président Abdoulaye Wade mi nga xam ne moo jiite woon réew mi te yàlla dogal mu amoon xalaatu joxe barab bi te gis-gisam bu sori tax na mu xamoon ne barab bi lañ koy soxlaa man na ko gis-gisub sëriñ bi itam di Cheikh Mouhamadul Amin ci jamono yooyee moom itam taxoon mu wane ne xamoon ne barab bi lañ koy doyee mën na ko kii kilifa réew mi nag bu xamee ni fii dañ ci soxla man na ko kii kilifa diine jiñ koy jox xam ne itam liñ koy soxla mën na ko la ca des nag nit ñi nga xam ne xay na seen xel eggul foofa mën nañ caa jaaxle waaye tey jii nag ku gis barab bi da xam ne ñooñu moom loolu jaaxalu leen moom kon nag jërë ngeen jëf ñoom ñooñu nga xam ne ñoo taxawaloon liggéey boobu bi ñu ko taxawalee nag liggéey bi ñu teg ko ci loxo yi sëriñ Muntaxa mii tey mu jiite ko waaye sëriñ jiitalaat rakkam cheikh Mouhamadul Bachir moom cheikh Abdoul Khadir mu ànd ko itam ak yu Mbàkke yu fay mi nga xam ne mooy jëwriñu Sëriñ Tuubaa ci Ndakaaru te def ci taxawaay yu ama ama am am solo ci liggéey bi lu ni wolof di wax nag ne lu waay waxadi waxadi boo gisee nen ne nen a ngi lu waay gàtt gàtt xam-xam ak lu waay gàtt gàtt xalaat boo gisee liggéey bi xamne taxawu nañ ko nañ ko wara a def nañ ci lañ ci wara def liggéey nañ ko nañ ko wara a liggéey ngir ko xamone barab bo ci jamono ci wat fi tay da nga xamne barab bi liggéey nañ ko kon nak ni ñi def moy dañuy dugg ak yeen ci biir jumaa ji visité ko ngeen gis ko ba nga xamne lu ñu leen ci wax yeen ci tegal seen bop seen bët gis ngeen bi ñu duggee ci biir jumaa ji fi nga xamne moy euh barab la bo xamne dañ fi julli aljuma kon dana laaj mu am minbar boo xam ne fële imaam ji di taxaw bar bi gis nga ni ñu ko liggéeyee muy liggéeyin mu am solo boo xam ne dafa am escalier yi ci biir la nekk ci salle bi nga xam ne fële imaam di duggee fa la nekk bu duggee day yéeg bu yéegee ba ca kaw bunt ba ubbi ko ci lay jàkkaarloo nag ak waa jumaa ji jàllale ab xutbaam du baare sàppe du xatal jumaa ji du yàqal kenn ab toogaayam mu taxaw fa joxe xutbaam ba noppi wàccaat jaar ci bunt boobu ngeen di gis ñëw ci mihrab bi mihrab bi it gis ngeen ni mu mel macha allah koo ko gis ku nekk da nga xam ne lislaam rek moo yeyoo lii lislaam rek moo jagoo lii waaye Sëriñ Tuubaa la lislaam jaral li mu ko jaral moo tax lislaam itam di ko delloo njukkal ci taar bu am solo bii nga xam ne moom la ko joxaat tey jii ci jumaa ji ginnaaw bu mu ko ko joxee ci jumaay njaareem ca jamono jooja joxaat ko ko ci jumaay Touba ci 1963 joxaat ko ko tey jii ci jumaay Dakar ku gis jumaay njaareem 1918 gis jumaay Touba 1963 gis jumaay Dakar ji 2019 da nga xam ni Serigne Touba ku lislaam delloo njukkal la ci barab yi nga xam ne tey jii ñu ngi tudd di ko ci tudd noonu itam. Lamel, mel ni ko jumaay tubaay mele rek gis ngeen barab bi nim bindo ak ay alquran yi nga xam mom lañ ci bind ci kanam allahun nuru samaawati wal ard ak yi nga xam ño nek ci wadi yep yeen nga koy gisal seen bop mu nek barab bu am solo bu rafet bu jek euh, bi ñu jógee ci mihrab bi tam bir jumaa ji gis ngeen esplanade bi nim yaato waye façon liggéey biñ ko liggéey ni mu moderne nga xamne keno yi xatalu fen dañ ko def lu rek ay mbaar yoo xam ne mbaar mu nekk dafa am ñeenti jën ci misaal noonu la bindoo nga xam ne digg biir mbaar mi dara du fi nekk bu taxaw sàpp yi day jokkaloo di dem nga xam ne mbaar mu nekk mbooloo ma fa nekk dara dox seen diggante muy liggéey bu sell macha allah bu rafet boo xam ne ku fi ñëw danga xam ne fii xam-xam feeñ na fi technique feeñ na fi waaye itam jagleeg suñu borom jagleeg Sëriñ Tuubaa itam feeñ na ci foofu nag dañ fiy profité di sant alxaaji Mbàkke Fay bu baax a baax a baax a baax ndax ci biir wisit bi ñuy wisit leeral nañ ñu ci ne bari waane loo xam ne sax moom yàlla baaxee na ko ci am xelam moo ko doon jubbanti ci liggéey bi ku sëñ Tuubaa di liggéey loolu rek moo lay jox lamp moo lay jox lamp bi nga xam ne moom ngay niite moo lay niitalit moo lay won moo tax suñu borom defal na ko ci ndam lu rëy ñu ngi koy ñaanal alxaaji Mbàkke yi suñu borom euh, defal ko pay gu kawe njortam lolu sax amuñ ci lu ñu nattam ngir Serigne Touba moom ku ko liggéeyal ci pass Pastef mo lay fayal bopam def na fi taxaway bu am am amum solo and ko nak ak kilifa yi nga xamni ñoko wolu and ak mom liggéey bi diko liggéey lo mu Cheikh mohammedul muntaka ak Cheikh mohammedul basir mom Serigne Abdoul Khadir waye and ko itam mbollem comité bi nga xamni ñom la andalon di liggéey liggéey bi tambalé ko ci ñi ñi seuss ci mom ba ci ouvrier yi nga xamni ñoy liggéey ba ci architecte yi ba ci technicien bâtiment yi ba ci maçon yi ba ci mboolem koo xam ne jàpp na ci liggéey bi kon liggéey bu am am solo la boo xam ne liggéeyu mbooloo la waaye faaw nag mu am mbooloo moo gis mu am kilifa goo xam ne moom la ñuy àndal Alaaji Mbàkke nag taxaw na ci taxawaay am solo kon nag ci kàddu murit yëpp ñu ngi koy jottali ak cant bu baax di ko di gërëm tey di ko ñaanalit suñ borom musal ko te aar sàmm ko nii mu sàmmee liggéey bu Sëriñ Tuubaa ba mu egsi fii loolu it lañuy ñaanal kilifaam yi nga xam ne ñoo ànd ak moom di ko joxañ muy def Cheikh Mouhamadul Bachir moom Serigne Abdoul Khadir di ko xam ne moom itam ñëpp xam nañ ab taxawaayam ci ñooñu ma tudd léegi di kilifaam yooyu tàmbale Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Sidil Muxtaar ak Serigne Mountakha nii moom it taxaw na ci taxawaay boo xam ne taxawaay féetewu ko kaw waaye ànd na ceeg itam ñi nga xam ne ñoo ko doon liggéey nangu cee diisoo ak ñoom nangu cee ànd ak ñoom di dem di dikk di xooli di gis di seet la gën a baax gën a yàlla gën a rafet ñuy and diko jëndal Serigne Touba ba liggéey bi exi bi gis ngeen lampe bu rafet bi nga xamne mo ngeen jakkalo ma sha allah muy litre bu reuy bu rafet bo xamne euh ay tonne la man na 3 tonne boko xolé sama bima xolé man sama xel dafa dem ci lampe bi nga xamne mom la alhan joge tebe andi won fi ci jumaay Touba ji waaye ba léegi tam litre bi nga xamne mo fi nek tay ji tim par bu Cheikhul Khadim bi ak ñi nga xamne mo tim ko bobu mag bi muy lamp yu rafet yo xamne euh dernière génération la waye xol leen itam décor bi nga xamne mom la andal ba ci volontaire yi nga xamne moko wër don yalla def ci lo xamne itam lu yéme la ndax wax nañ ni ñaar fuk ak juroom ñaar la won waye fuñ natte rek du du du mëna and du jup ba yalla def mu nek ñaar fuk ak juróom-ñett nekk arafi Tuuba nekk lu ama ama ama solo nekk itam ay bunt yoo xam ne jant bi daf fiy duggee di leeral jumaa ji waaye xam ngeen ni itam dañuy wax ne bépp barab boo xam ne jant ceeñeeri jant bi mu ngi fiy dugg jàngoro daf fay tuxoo kon mu nekk ñaari yu am solo yoo xam ne moom lay jëriñ ci biir jumaa ji daf koy jox leer di ko jox ceeñeeri jant bi itam yi nga xam ne day rey ay jàngoro kon nekk na lu ama ama am solo ñu wutal ko itam Euh, ay palanteer yoo xam ne yu yaatu la yu gudd yu rëy yoo méngoo ak moom mu toll ci ni ma ko waxee léegi li mum ñaar fukk ak juróom-ñett ñu wër làmp bi bu dee bëccëg jant bi mooy leeral biir jumaa ji bu dee guddi làmp bi bu takkee foofu fépp day leer mu nekk itam foo xubba boo xam ni xawees na ko mën a méngale ak xubba bi nekk ci jumaay Tuubaa ci ab yaatuwaay ak rëyaay waaye wuute gi fi mu amee mooy jamono ni muy doxee gis ngeen bu ngeen ñëwee fii keno yi dafa nekk keno yi dijj foofu la jamono tolloon ca jamono yooyu tey nag gis ngeen ne xam-xam dem na ba mën naa def ay keno yu sew yoo xam ne day yenu lu toll ne li keno yi dijj yooyu di yenu yàlla jagleelaat ko Serigne Touba ci jàkkaam ji wala jumaam ji noonu la amee ci wet yi jàkka joo xam ne dañ fiy jullee jullee juróom ndax xam nga ne fee yaatu na yaatuwaay boo xam ne 60 mètres carré la 60 mètres sur moom la guddee moom 60 mètres la guddee yaatoo 60 mètres foofu foofu lañuy ñuy jullee aljuma yi dafa jullee itam ayit yi nii ci ndigalu sëriñ bi bi ñu jullee bi ñu ubbeekut jumaa ji mën naa bu ko ubbee jullikaay ayit bi toxu wala mu itam moo sax fa loolu ci nekk mën naa nekk waaye fa lañ daan jullee ayit te sëriñ bi joxe woon ndigal li bu yàgg ci wet gi am na fi jàkk yoo xam ne dana jël lu mat ñetti téeméeri nit yoo xam ne fa la ñuy jullee julli juróom yi ndax fee bu fa mbooloo duggee man nañ faa réer ndax yaatuwaay bi ak réyaay bi am na itam jàkka ju rafet ni ma la nga waxee ju nekk ci wet gi boo xam ne ci biir jumaa ji la bokk sax waaye fa la ñuy jullee julli juróom yi am itam jàkka yeneen ñu ko bootal yoo xam ne fa jigéen ñi di jullee su ginnaaw nga xam ne diggante fi góor ñi jullee ak fi jigéen ñi jullee am na lu dox seen diggante ba du ñu jaxasoo mu doon loo xam ne itam mbégum sëriñ Touba la waaye ku ne xam na itam taxawaayub Serigne Touba ci bañ jaxasoo góor ak jigéen ku koy bañ ci biir kër nag rawatina ci barabu jaamukaay yàlla di jumaa jooju kon gis ngeen fi nga xam ne fi la jigéen yi jullee ni mu yaatoo bu dul ajjuma waaye bu dee ajjuma it noonu lañ amewaat fu ñuy jullee mu wër jumaa ji nekk ci kaw nekk ci suuf nga xam ne benn el la wala xawma nuñ koy mën a tuddee sax loo xam ne dafa tàmbali ci wet gi yaarak ci sowu bi yaarak ci wetuk ndey càmmoñ gi muy wetuk ndeyjoor gi wetuk sowu gi ak wetuk gànnaar gi doon barab bu yaatu ci kaw boo xam ne barabu jullikaay jigéen ñi la nga xam ne mbooloo mu bari ay jigéen lu man ñett junniy jigéen wala lu ko ëpp mën nañ faa jullee ñu defar ko defar bu mucc ay gis ngeen itam ne am na juróomi soroor ñi nga xam ne moom la jumaay Tuubaa njëkkoon a am kon jumaay Tuubaa bi mu jógee ci juróomi soroor juróomi soroo yi daf ko rafaatale jumaay ndakaaru ñëw ci juróom-ñaari soror moom mbirum sëñ Tuubaa lu yéeme la mu ngi noonu euh, ni mu amee jullikaayu jigéen yooyu itam ni la amewaat barab boo xam ne bu ñuy jàngee xam-xam la ni nga xam ne noonu la ko jumaay Tuubaa ji amee daarul maarif islam yi ku xam na ko fii ci jumaay Tuubaa sëñ Alxaaji Mbàkke Jaxate di fi jàngale foofu it am na barab boo xam ne dañ fay jàngee xam-xam majalis boo xam ne nii daarul maarifil islam yi mel ci jumaay Tuubaa ji noonu la mel foofee ñu fàggwaale ko fa muy barab bu yaatu bu feex bu neex a jànge bu neex a jàngalee itam kaw biiru biir bi biir jumaa ji itam moo xam muy ci jullikaay bu mag bi moo xam muy ci jullikaay julli juróom moo xam ci jàkkay jigéen ñi ba ci daarul maarif boobu boo xoolee kaw gi lépp def nañ ko décoration bu rafet bu mucc ayib boo xam ne ci décoration yi mujj génn ci la bokk nek bu mucc ayib bo xamne ne sha allah melawi rafetay bi foko way tak takk ëpp na ko ak nak ay lamp électrique rafet muy lamp yo xamne euh yu yeme la xamna naa fañ ko tanne bokku ne ci lamp yi fa gëna rafet sañ dama wax sax ne moy yi fa gëna rafet ni ngeen ko gisee ci bir image waye mu am itam lu moy euh barab bo xamne fa la ñuy saytoo kàddu yi fi muy génne ak image yi génn muy benn régie bu am solo boo xam ne dernière génération la télévision yi moderne yu bees yi am ci réew sax yi ci bari am àggaguñ foofu defar ko defarin wu rafet muy boo xam ne bu télévision ñëwee ak i caméra ak i nangam jëratul ñuy dugg ci biir jumaa ji di xat-xatloo di boo xante di yéeg ko wàcc waaye biir jumaa jëpp installé nañ ko ay caméra am na xamne ne fa la sortie bi nek muy barab bobu ngeen di jàkkaar lool di rëcc bi euh, ku soxla image bo ñëwee da ngay brancher rek sa caméra ku soxla son itam nonu son bi itam am na local technique bo xamante ne bi da ngay ñew rek jël son nang ko bëgge nga koy amé tu am dara la ci yakal micro bu ne dem na fam wara dem fil gu ne dem na fam wara dem image bu ne itam na ñew te ñom itam nañ ko défé ci liggéey bu gëna sel sell liggéey bobu di ñu ko dàq ci réew mi gën koo fee man matériel ya fa nekk itam di matériel yoo xam ne euh, waxuma ne kenn amagu ko ci réew mi de waaye bu fekkee am na fii tam lu néew la fi muy barab bu rafet bu yaatu dëppoo ak jamono moom itam la lépp dañ ciy gisee ñor goo xam ne ñi nga xam ne ñoo yore liggéey bi ñor nañ ko ak yawute goo xam ne yawute nañ ko ak xam-xam boo xam ne xam nañ ko ci wàllu nouvelle technologie de la communication fi toll tey nga xam ne weesu nañ mbooloo mu bare dikk taxawandoo kenn ku nekk sa caméra kenn ku nekk ak sa micro waaye war na si naa mën a am foo xam ne benn micro képp mën nay jottali lépp benn caméra képp mën nay jottali lépp te ñëpp di ci jot nañ ca war a jot loolu itam lu am solo lañ ñu ngi ciy félicité ñi nga xam ne ñoo amee liggéey boobu bu baax a baax a baax a baax ndax jamono moo dox ba toll foofu nga xam ne lépp lu fépp waaye lépp lu waaye di liggéey di war na caa bàyyi xel no euh, communication rawatina barab bu demee nii. ni ñu liggéeyee foofu itam ni lañ liggéeyee mbooleem biir jumaa ji ci kaw ak ci suuf gis ngeen suuf gi itam macha allah karaw bi nga bi ñu ko defar boo fi taxawee sax da ngay mel ni koy gis sa bopp da ngay rafet mu rafet waaye noonu lañ ko waajalee itam ay climatiseurs yoo xam ne ñoo ko war a wër nekk ci biir jumaa ji ngir seral lii biir jumaa ji gis nañ ko ci biir ma nga fay lépp ñëw na xanaa installé ko rek moo yem moo des waaye ñëw na ba nekk foofu mu nekk lu ama am solo matériel bi nga xam ne ñoo ko moo ko war a entretenir tamit moo xam muy ay ay aspirateur moo xam muy ay bale moo xam muy ay raquette moo xam muy ay serpillère moo xam muy lu mu mën a doon ci loo xam ne lu jëm ci wàllu cet gi la yooyu yëpp tam yu ca bari yamb na mi ngi ci barab bi kon daal barab bi mën nañoo wax ne lépp lu koy xay wala lépp lu koy rafetal wala lépp lu koy neexal xet gi man waajal nañ ko ni nga xam ne noonu la jaamukaay yàlla war a mel biti bi itam ni ñu defaree biir gi noonu lañu defaree biti bi biti bi macha allah ko soroot mag bi nga xam ne mu nekk ci digg bi te moom itam gudd lool xam naa guddi na lu ëpp juróom-benn fukki mètre ak nangam euh, ndakaaru gépp boo fi taxawee da nga koy seen ànd ak montor bu am am solo yoo xam ne ñoo nekk ci soroor yi di dox nga xamne ci waxtu fo ma tollu man nga xam waxtu julli fo tolli tam man nga xam lu ci dess su fekke yalla baaxee na nga xam heure julli mu nek biti bi itam ñu aménage ko aménagement bu rafet fofu itam danañ profito gërëm ñi nga xamne ñoy njitu moy njitu rew mi ci taxaway bu rafet bi nga xamne mom itam def nako fofu ginaaw bi president Abdoulaye wad joxe barab bi and ak ñi nga xamne ñoko doon liggéey ci tambali ba ba yalla jeexal nguuram ki nga xam ne moo ko fa wuti bi mu ñëwee dafa ànd ak ñoom ci liggéey bi na nga xamante ne bi ñii fi nekk te wuutu seen i kilifa noonu la ñu woyale liggéey bi ànd ko ak ñi nga xam ne ñoom lañu ko àndaloon moom mu def fa liggéey bu am solo ci li nga bu ñu baar yi nga xam ne ñoo wër jumaa ji yépp mu defar ko ay tali yu am solo tali yoo xam ne ànd na ak la mu war a àndal lépp ci assainissement ci éclairage ak ci lépp ba barab ba taaru taaruwaay boo xam ne jéggi na biti bitti bi yépp gis ngeen ko ni parking bi gis ngeen allées yi nga xamni ño dugg si ci biir yépp ak yi nga xamni ño wër juma ji corniche bi nga xamni mo wër juma ji ak lépp ni nga xamni non lañ ko liggéey mu nek liggéey bu am solo ni euh, mu ak gazon yi nga xamni yeen nga koy gis ñu bind ci masalikul jinan di turu juma ji muy décor bu am solo bo xamne day décorer juma ji yooyu lu am solo loo xam ne xalaat bu rafet ak technique boo xam ne dana wane xam-xamu ñu ko doon liggéey dana wane seen technique bu ñu am waaye dana wane itam njàmbaarte ak fulla ak fayda joo xam ne jox nañ ko liggéey bi ba mu agsi fii loolu nag xam ne moo jiite liggéey bi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moom la ko ay magam tegoon ci loxoom ak waajuram Cheikh Saliou Mbacké jaar ci Cheikh Mouhamadul Basir mi nga xam ne moo nekkoon ci dox digganteem ak ñi nga xam ne ñoo yore liggéey waaye alaaji mbàkk yi mi nga xam ne ñoom ñëpp moom lañ fa bàyyi woon mu di ko taxawu doon seen i bët doon seen i tànk doon seenu làmmiñ ñoom ñëpp nag ñu ànd lu ñu ciy def mu nekk lu ñu déggoo ba ànd ci ñoom ñëpp lu waaye indi moo xam muy ingénier moo xam muy architecte moo xam muy ab liggéeykat ñu teg ko ci taabal ji boo ko ko waxtaanee ba xool la ca gën ñu wéyal loola noonu la ñuy doxalee liggéey bi ba mu agsi fii mu agsi tey jii nga xam ne dégg nañ ci làmmiñu Alaaji Mbàkke yu fay wax ne lu ëpp ñaar fukki milliards dem na ci liggéey bi waaye ku fa dem te xamoon na barab ba meloon xam fii mu liggéey bi toll tey buñ la ko waxee doo ko yéem da xam ne loolu lu mën a nekk la kon nag mbokki jullit yi mbokki taaliba yi jumaay Masaalikul Jinaan a ngoog ñu fas ko yéenee ubbi insha allahu taala ci weeru septembre bii nga xam ne mooy weer wi nga xam ne ci la Serigne Touba jóge woon dem ci géej gi su ma koy wax nag mooy ci la jóge woon ci réew mi laa bëgg a wax muy départ Ndakaaru te ñett ñaari guddi ndakaaroom yooye amee woon ci weer woowu ñu dakkaat weer wii defee ko ci. loolu it day dellusiwaat ci li ma waxoon ne Serigne Touba ay mbiram day nuróol sëriñ Touba mënoon naa màggalu Touba gii tey mu def ko bis bi mu dellusee woon jóge ci tukki ba. waaye dafa tànn bis bi nga xam ne moom la doon demee ci tukki ba muy 18 safar dëppoo woon ak le 10 août quinze bés booba la tànn santaani ji màggalu Tuuba ngir moom jàpp na ne ba mu jógee di liggéeyal yàlla rek la amoon ndam te boobay la amoon ndam loola moo tax Cheikh Mouhamadul Mountakha itam naat bés bi nga xam ne wala weer wi nga xam ne ci la Sëriñ Tuubaa daje woon natt yooyu mu taxoon mooy wax ne ida dakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa tubuta taarat ila al jihaadi bil armaahi nafsi walakin dabba anil maahi loola moo tax moom it mu tànnaat bis booba ngir xam ne bis booba ci la amoon ndam lii mu am te ji néeg bu xat boobe ñu ko dugaloon mu daje fa ak lam fa dajaloon ci ay natt ak i tiis ak jafe-jafe moo ko may jumaa ju yaatu ju rafet ju jii nga xam ne moom la am tey jii muy euh, euh, barab boo xam ne matul ñetti mètre dem ba ñu fayee koy barab boo xam ne egg na ci soixante mille mètres carrés di juróom-benni hectare ci barab boo xam ne matutool ñaari mètres yu carré yaakaar naa ne ku ne xam ne ni suñ borom fay na ko fay mu rafet waaye lislaam jaral na ko lu ne waaye tey jii tam lislaam siggal na ko fu ci àdduna bi ndax liggéey bii kat liggéey la boo xam ne àdduna bépp danañ ci teg seen bët te ndamul lislaam lay doon mu mën a toll kon nag bokki julli yi bokki taalibe yi lii la GMT TV jële woon tey jii ci Masaalikul Jinaan di jumaay Sëriñ Tuubaa ji nga xam ne moo nekk ci digg Ndakaaru te taaru lool rafet lool ñu war koo ubbi insha allahu taala le 27 euh, mm, septembre 2019 ci njiitul cheikh Mouhamadul Mountakha ànd koy itam ak ñi mu liggéey bi cheikh Mouhamadul Bachir moom Serigne Abdoul Khadir alxaaji Mbàkke yu fay ñu nar ko def ci kilifteefu nag mboolem njabootu Serigne Touba gépp mboolem kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp mboolem kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi yëpp ak njiitul réew mi ak njiitu réew yi jullit yi nga xam ne ñoo ñu wër ak fu njiitul réewul jullit nekk ci àdduna bi ñooñu ñëpp ñu ngi leen ciy woo waaye ñu ngi ciy woo bépp jullit ak fu mu mën nekk ci àdduna bi di sentu ñëpp di ñaan ñëpp ñëw ci jàmm ñu amal ko ci jàmm ñépp dellu ci jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bi kitaabin saxal bi siwa